seede la yu tukkee ci ñaari doomi Sénégal yuy dund ay at a ngi nii sa Nouadhibou di capitale économique bu réew Mauritanie kenn ki maçon la keneen ki di soudeur métallique li gën a ub seen bopp sonal leen lool foofee sa Mauritanie bokk na ci jafe-jafe yi ñuy dund sa Rosso ak douanier yi ak xaar yu yàgg yi nga xam ne dañ ko fay xaar laata rek ñuy jéggi bile frontière dox ci diggante ñaari réew yi. frontière euh, Rosso Sénégal balaa nga fay balaa ngay jéggi foofu boo fi jógee imagine toi nga jógee Dakar à 6 heures du matin ci Rosso Sénégal ngay fanaan pour nga mën a jéggi dem Rosso Mauritanie nga ñëw ci Rosso Mauritanie kenn du la may jàmm ak salaam waaw laaj bi dafay bari trop. carte de séjour di géej bi leen war a may ñu dund foofee sa Mauritanie liggéey fa si anam gi ko yoon santaane loolee it balaa ñu koy jot nee nañ lu ne la ñuy daj. te ba pare bu fekkee da nga koy wut day métti parce que rang bi kenn xamul nu mu toll bu ñu utaloon ay matuwaay boo xam ne buñ koy am. dana facile su ñun daal dina ñu arranger lool lool lool. parce que titre séjour bi ñu doon def un an lañ la daan la daan la daan am renouvelable. il paraît que dañ ko yokk jëlee ko à un an yóbbu ko à cinq ans mais yóbbu ko à cinq ans bi il faut que nga am naar bu la garantie. en plus indi papier yoo xam ne ay casier judiciaire ak yeneen ak yeneen ak yeneen yëpp il faut nga dem Sénégal pour mën mën ko am. doomi Sénégal yi am yaakaar bu rëy ci njiitu réew bu yees bi ñu tabb ci bopp réew mi mu di Bassirou Diomaye du ñu jàppale ñu lool ci carte séjour bi ci nekkin wi dinañu dinañu gën a lool ndax euh, guddi guddi guddi Sénégal la ñuy fanaane. parce que ku sañoon sa dëkk ngay toog waaye ni mu demee woon moo tax ñëpp bëggoon génn gis say waajur di kërti kërti te yow yaa leen waroon jox. amoo loo jox loolu boo amee kersa lool lool lool doo mën a dëkk ak ñoom. seen nag mooy dem ba mën a ñibbisi fi ci réewu senegal ci réew moo xam ne am fi liggéey dootu leen të.